Aba le vrai lañ koy wax doomu ñaari tali Grand Dakar. Aba dama doon laaj est-ce que yaa ngi seetaan live yi nga xamante ne ñoo nekk ci réseaux sociaux yi. waaw bien sûr maa ngi leen di seetaan bu baax a baax di leen suivre euh, temps en temps su ko euh, temps bi maye dinaa leen seetaan ndaxte euh, critiques yi nga xamante ne day faral di am si réseaux sociaux bi. mais nag d'une part am na ñoo xam ne ni bon seen business bopp lañ si la ñuy live quoi pour a avancer moom. lu ne la ñuy wax waxu reewande bu ne da nga ko si dégg waxu ñàkk nu mu gënee ñàkk teggin yow man sama am na ñoo xam ne boo leen dégloo da nga koy dégg man lañ amuñu way jur quoi loolu lay gis quoi. saaga nday yoo xam ne dafa rafetul ci doomu aadama parce que peuple bi yëpp a koy seetaan réseaux sociaux réseaux kii sociaux yi dañuy dem fépp partout dans le monde dafa rafetul xale ndaw dañ koy seetaan parce que bu ñu déggee saaga bi dañu yaakaar ne woy la fekk du woy wala nga dégg saaga nday bi moo rafetul. war naa mën a réseaux sociaux yi war naa mën a demee neneen mais pas ay saaga ndey saaga ndey moo rafetul tey jii bëggoo kenn ku saaga sa yaay waroo saaga yaayu kenn dafa rafetul nit boo fonkee sa ndey fonk sa baay waroo saaga kenn mooy dëgg. ñoom li ñuy def ni maanaam amul njëriñ quoi te àdduna nag maanaam lu la yar ak teggin mayoon rek dalul loo ko ñoom xaalis bi ñu gagné ci réseaux sociaux yi noonu di ko dundalee seen njaboot war nañu xoolaat lan la quoi ndax loolu amul njëriñ. ndax bu fekkee da nga jël ci réseaux yi taxaw su li mbootu nit saako ko ndey tegal ko la neex pare gañe ci ay vie am ci xaalis pare war ci dem dundal sa njaboot loolu amul njëriñ quoi kaji nga nit da ngay dem nga gañe sa live leneen nit boo ko xamalee lu bon sax war nga ko mën a woo ba mu ñëw ci la lay gën a naw toog waxtaan ak moom ci sura conseillé ko mu dem bu demee boo li ma wax ni maanaam loolu teg fu mu tegul kenn Abdou Khoudous parce que mënu maa concevoir euh, nga toog sa kër def sa live Macky Sall nangam ba kilifa nangam wala diw nangam après nga toog quoi aimé yi vues yu bëri suba nga defaat beneen ñu aimé waat vue waat suba nga aimé waat beneen ñu maam mu bëri bëree bëri ba mu defaat dañ naan di tayef la après gars yi dañ koy jël def ko solo ga fois nag da ngay gis ay mbir yoo xamante ni euh, du du yoon ndaxte Sénégal dafa lu ñu lu ñu baaxoo tey barki Dembo Ndiaye ku si mel ni Morgan euh, génn na di def ay information yoo xamante ne tey jii amaana bàyyiru xel ñi nga xamante ne mooy mooy xale yi nga xamante ne ñu ngi si réseaux sociaux bi ndax mënu ma concevoir euh, ku mel ni moom tey mu gis euh, toog si live am di wax di dénoncer loo xamante ne lu ñaaw la di ko teg si deru ki nga xamante ne moom mooy le président de la république lu mu bon bon bon moom mooy suñu président lu mu bon bon bon moom moo jiite réew mi di Sénégal pays de la teranga di wax di dénoncer loo xamante dafa am dafa doon loo xamante ne dafa ñaaw ndax lu mel ni président de la république nga naan dafa am dafa am dafa am beneen coro coro bu muy àndal di dem si di dem di ko fekk appartement am ay moo koy fay appartement am ay deux millions yooyu yëpp boo ko xamee téye ko am na loo xamante ne Sénégal vraiment loolu loolu baaxewuñu ko man moom man Aba la vrai vraiment maa ngi si média bi tamit en même temps mais man loolu dama koy ñaawlu parce que euh, mbir moomu day toog te xale euh, mun nañ ñëw xool ni Morgan defoon na ko kon tey beneen président bu fi toogee ñu gis ñu baal ma si kàddu ñu gis euh, président bi def loo xamante ne vraiment lu ñaaw la euh, ñoom am nañu dañuy am sañ-sañ daal di toog si réseaux sociaux bi di ko di ko wax. tullaat jekkul saaga ndey moom lu mu dugg rek rafetul nañu joxant ku nekk nañ na jox moromam cër respecté boppam respecté peuple bi peuple bi respecté mag ñi mag ñi jox xale yi cër mag ñi cër ñi ku nekk daal jox sa morom cër. loolu mooy àddina mais toog si réseaux sociaux yi ku nekk partout dans le monde da lay seetaan ngay saaga ay nday di wax lu la neex di wax lu la saf mun naa ñàkk. daa rafetewul lañ ko. man rafetul jekkul rafetul jekkul rafetul xale yu ndaw yi dañuy seetaan ku nekk yaa ngi yor sa portable di seetaan jekkul rafetul. wax dëgg yàlla yàq parce que fii ñun ay fii Sénégal dëkku jullit la dëkku sëñ Bamba la dëkku sëñ El Hadj Malick xam nga ak Baye mag ñu baax ñu fi nekkoon kon am na yenn kàddu yoo xam xamante ni yow mi ko jàllale yow yaay responsabilité bi même boo ko gisee si mbedd bi yow mi jël ko wax ko parce que yàlla sax loolu la wax nee na lu baax même boo ko xalaatee defoo ko loolu du dara mais le fait nga def ko wala nga wax ko waaw fala problème bi nekk waaw moo tax nit ñi war nañ xoolaat bu baax li ñuy wax parce que ñu ñun ñoom ay doom yoo xam ne xamuñu dara te xam nga léegi xam jamono ji xam booy ak téléphone moo tax yooyu daal kon su ma sañoon nañuy jël xool seen kàddu yi nu ngi koy waxee. def ko lu bon yi fii lañ jël leen ñi fi jàngale alxuraan wala ñii éduquer xale leen teg ci koor yu baax wala enseignant yooyu doo leen gis ñu invité leen ci télé affaire yooyu bu ñu leen invité ci télé rek politique la yaa ngi dégg mais fii da ngay gis koo fi gis saaga wax lu bon xas xuloo te maanaam amul benn sens quoi kaji nga ñoom lu ci ëpp nag ngeen baale mais ci média bi sax ñoo koy gën a influencer ndax ñoom ñooy invité def kat yu Adamo bu ñu ko xamee télé ak rajo yi ñoo gën a médiatisé bu ñu yegg fi mu yegg. mais eh, Adamo ay live la ko nit ñi xamee tamit. day def live Californie barki Demba Ndiaye seetaan nañ ko Walfadjri Adamo kenn du ni xëy na feeñ ci télé ak affaire yooyu noonu. mais maanaam ñu leen di jeex bañ leen di constaté amaluñu réew mi benn njëriñ am na ñu amal réew mi njëriñ bu baax te ñi fi doxal société bi nice ñuy jël ñooñu di leen invité ci plateau télévision yi. am na si yoo xam ne ay diine rek la ñuy waxee te live la ñuy def di jàngale alxuraan nooy jullee nooy sangoo nooy defee say lépp mais am na ñoo xam ne moom ni ngay yàqoo rek lañ lay wax waaw ni ngay yàqoo rek ni ngay sat nooy def pour sa aduna yàqu walla sa yàqu yow sa wàllu bopp déglu leen léegi léegi du yàgg sax da ngay yàqu. su mel ni ay aadamoo ñooñu ba njëriñ lañ amal Sénégal ñooñu lan lañ defal Sénégal. jëmaluñu kanam dañuy influence yàq suñuy doom franchement parce que jamono ji yar amatul sax ci kër yi. ndey talatuñ yar bàyyi talatuñ yar ñett yi yar sa bopp bi la mbedd bi de yar ak yàlla sama borom bi la yar man fa tool jamono ji loolu moo am ci réew mi amul lenn loo xamante ni dañ koy apporter jeunesse amul. ku si nekk boo xëyoon ut loo def foog naa ne doo tala toog si réseaux sociaux di ŋàññi Macky Sall ak di ŋàññi Sonko di ŋàññi ku mu mën ki doon pour man boo xëyoon suba teel mu leer na ni yow da ngaa war a joxe dépense wala nga xool ni sa yaay manqué na nu mu manqué dépense nga war koo jox dépense doo tala ci ay réseaux sociaux di saaga ak a xuloo ak a lu koy lu koy waral tax ñuy am doole ñun sénégalais yi la ñun ñoo leen di may doole parce que ñun ñoo yor suñu portable ñoo yor suñu connexion ñun ñoo leen di suivre di commentaire commentaire leen di commentaire ñun ñoo leen di gën a doole ba ñoom tey ñuy gën am sañ-sañ di wax yoo xamante ne vraiment ah, waruñu koo wax kon tey jii nii euh, vraiment man dama koy dama koy ñaaluwaat encore une fois ndax doon na benn mbir moo xamante ne euh, ñun sénégalais ñooy ñooy gën a indi problème bi ndax Adamo da nam la tàmbalee ay saaga mais gis nga léegi wàññi na saagee Adamo léegi loolu la commencé di def di indi ay cas di teg di teggi di laal bay laal foo xamante ne waruñu koo laal kon tey yaa un problème doon solution bi nag instant bi nag moo jaaxal ñëpp parce que tey man mun naa def sama live xam lu xew lu Ousmane Sonko def par exemple ma ñëw teg sama live wax ko su ma defee benn benn wax bu pata boo xamante ne que waruma koo wax kon tey ñëppay daw ñoo seetaan sama live ne Aba le vrai wax na lii wax na la tey ñoo ñëpp après dañuy ñëw di la dooleel c'est que ñun maanaam problème mooy réseaux sociaux bi kenn mënu ko téye loolu mooy problème bi. ñu doon wax démb nañuy wax mag ñi doon yedd démb nañuy yeddaat parce que euh, ab ndaw boo ko bëggee jubbanti da nga koy fekk ci la mu nañuy waxtaan mu ëpp solo en plus nañu nañu nañu nañu nañu dimbali nañu dimbali ndaw ñi nañ leen gestuwaat nañ xoolaat suñu ginnaaw parce que chômage bi bëri na taux de chômage mooy waral wax ju ñaaw jëfin yu ñaaw doxin yu ñaaw ray yeeg agressé sàcc yi parce que imagine toi comme lii ku fi ne yow ñu war laa dimbali euh, jël sam beneen mbokk étranger bu jógee kenn xamut bàyyi la fi ngay liggéey yow mi dëkk ci gox bi juddoo fi yaroo fi màggee fi ñu xañ la maanaam teg la ay taxe baa ñu ne la non fi waroo fa teg wala defal euh, euh, demande tel nga dem defi demande pël bee ñëw teg ko fi ñu bokk fi te xamuñu lu tax yow jeune bi dëkk sa quartier mënoo fee tekkee yow moo mënul tekkee sa quartier est-ce que mën ngaa tekkee feneen solution bi dafa maam maam mënoo xam solution fa la nekk mënoo xam ci gouvernement bi la mënoo xam si société bi la mënoo xam. ku ne bëggul ko saaga sa papa kan bëggul saaga sa yaay ñu ñëpp ay borom waajur lañu waaye nag sa papa ndaw yaa saaga ngeen sa portable sax yem si benn saaga sa doom toog si télévision doo ñeme ngaan boo mën a doo mën a expliquer sa bopp boo ñëwee si kii ku ci jàpp nag yóbbu la dig nga ne waxumoon lii waaw ñoom na nañu jël seen responsabilité ku ci saaga ni kilifa ba nga boo demee dig da nga ak waa dig bu la jàppee nga ne du man du man du man du yuuxu wuti wàllu da nga jël sa responsabilité ñu lu benn njariñ ñun dañuy toog suñu kër sax duñu mbedd mu boo rombee saaga la ñuy saaga ra mooy waxtaan boo waxee ñetti wax saaga gën a paaka jam mooy waxu Sénégal xale boo si gis nangul liggéey nangul def dara koy wax saaga njëkk saaga lañ njëkk wax boo tegoon junni léegi cinq minutes da nga da saaga si mbedd mi seen waxtaan amuñu xam-xam waxtaan waxtu saaga rax nangam taan nangam taan ba kañ nañ jéem a régler situation bi kuñ ci jàpp lan mooy ci solution bi pour yow lan mooy solution bi ah solution bi kay sooy ne leen seetaan dañuy dañuy wut bës bës bës dañuy wut xam ni dañuy wut bës bu demee boo demee si euh, enquêteurs yi ngay yuuxu loolu waaw ah, boo tegee si mbedd ba ñu gendarmerie jàpp la gendarmerie jàpp la bul wut wàllu yow kay respons yow sa responsabilité la. Alioune Ba mal sa dafa rafetul jikko yëpp lañ yàq jikko yëpp lañ yàq et c'est pas du exemple bu baax et li mu commencé bi réseaux sociaux amee ba léegi la affaire bi am si on pouvait contrôler ces réseaux sociaux la yëpp du am parce que on ce qu'on pas accepter ay Kaliphone la xaw ma ay Adama lu nekk ay saaga saagandey nit ñi et puis les gens s'en glorifient dafa rafetul di saaga la première dame di ko traité di quoi le président la pi waxi noppi mais kon yow ñun nañ saaga mais bu ku saaga Macky Sall saaga Marième Faye sal mais ku nekk am nga ndey kenn bëggul ñu saaga seen ndey mais Macky Sall c'est responsable se le chef suprême moom la fi yàlla tegagum moo fi ne nit ñi dañ war a am yar mais lu ne nga wax ko et puis non man ce que je ne peux pas comprendre dañu xamul yan moyen lañ mën a am pour képp ñooñu jàpp leen traduire leen devant la justice mooy logique du lu neex waaye wax nit même simple citoyen amoo droit saaga ko à sa mag une institution comme le président de la République et son épouse dara musiba rek lay indil askan wi parce que comme par le cas de de l'autre la le journaliste là mais am na yoo xam secret défense la mais buñ ne confidentiel secret mais ku ne xam na lan mooy confidentiel ku ne xam na lan mooy secret am na yoo xam ne sa Rwanda lan moo ko taal mais <laughs> journalist mais wax loo xam ne nii moo doon wax ku journaliste bi peut-être da ko war a retenu lii boo ko waxee mu taal dëkk du ma ko wax lii bu ma ko waxee mu indi ay problème du ma ko léegi bu ma ko waxee nit ñi dañ réfléchir xool yoon bu baax ñu def ko ma wax ko am na yu bëri pour yow la man personnellement du ma ko wax parce que du ma ko wax parce que bu ma ko waxee a indi lii bu ma ko waxee musiba lay indi du ma ko wax liñ leen fi jàppe et puis ce que je ne peux pas concevoir comment ça fait que démb on attaque des des, des maisons de de de de, presse fii attaque fi ay RFM taal seen oto attaque fi ay journalistes ba euh, birim euh, euh, ba birime leen fu ne ñu def leen ko les journalistes n'en parlent pas xaar bañ jàpp waa joo xam ni li mu def du yoon ñu naan dañuy jóg di def marche mais ya y a deux poids deux mesures loolu mooy lan. mais ils sont pas conséquents yéen kii def na xam ngeen li mu def lu logique mais ku ne xam na buñ ma indil ay article quatre-vingt yooyu ça n'existe pas du lu la neex waaye wax. mais solution bi mooy lan ni ñi nañ delloo si seen xel ku nekk mën nga xam sa bopp li ngay war a régler ku nekk boo xalaatee ne lii bu ñu ko waxee sa papa mu naqaree la doo ko wax. kii ku nekk boo xamee lii bu ma ko waxee sa papa ma mën en prison du ma ko wax mais nit ñi waruñu encouragé nit ki bu ëllëgee kook def loolu bu ëllëgee donc les ko taal ci dëkk bi mais nit ñi il faut nekk journaliste ça ne te donne pas un journaliste investigateur sax dafa am nu muy mënee enquête enquête du noonu boo mënee enquête sax dafa am information boo ko jotee la plus petite information peut avoir son importance dama dama xam nan laa koy seetee ak fu may jaar ak lan laa ciy wax ak lu ma doon wax. bugguma ko parce que ay type topp ak affaire yooyu ñëw tax bugguma ko parce que c'est du n'importe quoi neexul neexul ngeen baal ma mais nit ñi xale yi dañu xamadi yaruwuñu. teguñ seen bopp fuñ teg et puis pour lan koo ci tëb mu naan damay liggéey dama bëgg liggéey te kenn amu ci métier. lan lañ def toog suba teel toog ci café yi naan rek kooku wut métier la métier da nga koy jàngi même bu fekkee ni jàng mais demal jàngi boo amee say diplôme boo kii nga def les concours concours yaa ngi fi ouvert à tout le monde. yow nga bëgg a toog ci keppaar gi naan dama bëgg a wut liggéey wutaluñ ma liggéey président na mais c'est pas le président qui donne du boulot aux gens nit ñi nañ dem nañ yaru ku nekk xool métier bi nga war a te nga dem defi ko. jàngi électricité jàngi leneen bu ëllëgee nga man jariñ sa bopp jariñ sa waajur mais sa maire lu mu teg nga yeno ko paa lu mu teg nga yeno ko sa xarit bi nga ànd sax lu mu teg nga yeno ko bu ëllëgee nga naan way président defaluñ dara mais c'est pas au président à faire ça